Khadra Coulibaly di journaliste file ci kër gi euh, réalisé na ko daal ñu koy euh, ngir rek mun leen permettre ngeen gën a xamante ak ki nga xamante ni moom lañ fi dalal tey ndongo de ñu ngi lay nuyu te di am mbégte di la dalal ci euh, plateau bu Sénégal VSD. jërëjëf soxna Penda ñu ngi leen di ziara bu baax a baax a baax mhm. kontaan nañ ci invitation bi. Mhm. maa ngi rafetlu bu baax a baax yàggoon naa dégg Sénégal 7 point mhm. vraiment lii moom. Euh, maa ko gisal sama bopp ñëw naa gis liggéey bi équipe bi et tout donc mhm. maa ngi koy rafetlu mhm. donc muy wane ne Sénégal am na ndaw ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu média te mhm. vraiment les choses sont en donc maa ngi lay jaajëfal bu baax ci dalal bi quoi maa ngi nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp Euh, Sénégal cat ba cat ñi nekk ci àdduna bi yëpp di ñu suivre maa di leen zaar. macha mhm. allah am na solo ñun également ñu ngi am plaisir bu rëy tey di la recevoir fii ci Sénégal 7 mais également euh, ci plateau bu Sénégal VSD comme ni ma ko waxee léegi nga dégg portrait bi nga xamante ni Abdou Khadre Coulibaly mhm. euh, jot na ko def ci yow ngir gën a mun a retracer sa parcours waaye itam yenn yi nga xamante ni nit ñi umpale woon nañ ko ki yow mu mhm. permettre leen ñu ñu ñu xam ko ci yow waaye itam ñu fàttali ko wàllu bu rëy qu'est-ce boo toogee gis Abdou mu nu mu retracé sa carrière yow ak kii di euh, Ndongo kii di Fada waaw maa ngi maa ngi koy maa ngi koy euh, jaajëfal bu baax. Mhm. parce que def portrait groupe bu mel ni ñun yombul tamit. Mhm. et je sais que euh, carrière bi nekk na benn carrière bu multidimensionnelle. Mhm. parce que bu fekkee ne da nga nekk Sénégal am mun nga ci am sa vision. ñi nga xam ne am na koo xam ne peut-être mu ngi dëkk ba Sydney wala kii mu ngi dëkk ba New York am na vision bu mu am ci groupe bi ak. taxawaay bi nga xamante ne nii buy xool groupe daara ji famille yi day am vraiment vision boo xam ne mën na ko joxe ku ci nekk ak angle bi nga ko mën a defee. Mhm. xanaa may rafetlu rek ni mu ni mu defee ni mu le fait mu wax euh, ci suñu début. Mhm. Euh, j'ai bien aimé aussi passage bi muy wax ci morceau borom bi. Mhm. ak album xalima. mu nekk ay album yu marqué nit parce que ñu ci bari des fois dañ koy déglu ni en filigrane mais du ñu xam contenu bi quoi. donc euh, xam naa ni nekk na koo xam ne déglu na ko attentivement. ba xam ne que ponki islam lañ doon wax ci biir morceau boobu. Mhm. donc muy ñuy delluwaat rek ci toujours ci euh, euh, essence su hip hop. Mhm. muy le message. Mhm. parce que ñun bi ñuy tàmbali musique bi loolu moo ñu taxoon jug. mooy lancer des messages mais message boo xam ne day intemporel. du nekk rek benn message boo xam ne mën nga ko déglu tey dix jours wala un mois trois mois wala un an après nga fàtte ko. mais boo ko dégluwaatee day mel ni tey lañ ko tey lañ ko produire. donc un aspect plus actuel boo xam ne peut-être moom moom laay wax ne que dégguma ko ci ci euh, portrait bi mhm. mais xëy na loolu bon mooy li nga xam ne peut yow ci loolu nga nar dugg mhm. mooy le fait que ñu génne benn projet récemment nga ah. xam ne dafa tombé pandémie mais xam naa dinañ ci dinañ ci yegsi mais il a vraiment fait le tour mais xam naa ni c'est pas c'est pas évident mm -hmm. pour nga def portrait groupe bu mel ni ñun parce que y a beaucoup a beaucoup de choses à dire beaucoup, ça, de choses à dire mais uh-huh. maa ngi koy maa ngi rafet rafetlu uh-huh. liggéey bi mu def ko ñun également ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu te di ko remercier Abdoul Khadre di vraiment mm-hmm. euh, journaliste bu bu bu mun li muy def waaye tamit bu disponible euh, bu baax a baax léegi Ndongo euh, ñu mm-hmm. fas ne nag dugg si suñu suñu waxtaan Euh, mais d'habitude dañ koy dooree ak li nga xamante ni moo di mhm. actualité bi ngay porteur de voix boo fi toogee il faut mhm. ñu ñu ñu ci yenn point yi mhm. euh, fi ñu koy dooree nag moo di yokkuteb dund bi ak tolluwaayu réew mi jamono jile sa gis-gis par rapport ak loolu waaw sama gis-gis damay delluwaat damay jëlaat toujours référence rek ci euh, ci histoire mais aussi ci li nga xam ne ñun ci suñu wàll parce que bi ñuy enregistré suñu album bi 2017 dañu ci def benn titre bu tudd jamono Euh, def ci aussi beneen tiis bu tudd jot na mhm. ñu wax naan euh, vraiment euh, Afrique dafa joxe joxe na joxe na léppam ci kaw loolu analyse bi may def rek ci loolu mooy que li am ni yëpp li xew c'est juste la c'est juste le résultat mooy jeexitalu mooy résultantu li nga xam ne moom moo amoon ay at ci ginnaaw parce que Sénégal indépendance bi muy waxee soi-disant indépendance bi mu amoon ak léegi mhm. économiquement Euh, bouge wuñu mhm. trop am na ay peut-être ay spécialistes yoo xam ne wàllu technique dinañ la jox ay chiffres mhm. xam nga mais man mi nga xam ne ab saalum saalum laa nekk baykat nekk artiste ba may wax waxi chiffre mhm. ma dëkk biir biir euh, côté mbir ki laan wala ma nekk koo xam ne bawol bawol laaw ba may wax waxi chiffre du ma xam euh, yokkute dund bi tegu na ci ndoddu askan wi am na ñoo xam ne xëy na duñ ko yëg te te vraiment mu nekk loo xamante ne nii man euh, côté boobu laay gën a xool te côté boobu moom may gën a metti le fait que ñu banaliser. Mm-hmm. ñu banaliser ko c'est-à-dire que euh, bi ma toogee dégg ñu ne euh, nit ñi di di di ñaawlu yokkute dund bi. Mm-hmm. mais à côté nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy essayer. Mm-hmm. toujours di prouver ne que tout va bien. man loolu moo may loolu moo may. loolu moo may metti ñoom ñoo ci gën a ñoom ñoo ciy gën a dund lu metti moo ëpp. moo ëpp. c'est comme euh, à, à l'image du monde quoi. Mm -hmm. tu vois une petite euh, minorité boo xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy contrôler àdduna bi. Mm-hmm. Euh, nga gis nag une la grande masse. Mm-hmm. bi nga xam ne ñoom ñooy ñooy dund metti metti bi. Mm-hmm. ñoom ñooy ñi nga xam ne peut-être seen loxo jotul seen digg ginnaaw te yokkute bi du lenn lu dul une mauvaise politique. je pense que du ñu fi nekk sax di di di tergiverser wala di polémiquer. mais tout le monde sait que. man bi may bi may jàng jamono bi may jàng dans les années peut-être quatre-vingt-dix bi ñuy bi may njëkk dégg ajustement structurel dama ci doon daf ma nekkoon lu ma jaaxaloon quoi. et après ça y euh, dévaluation bi am euh, ma dégg ñuy wax sama mag sama yenn tonton di wax affaire accord de Bretton Woods may laajte quoi maanaam mais je me suis posé des plein de questions et loolu mooy wane ne que euh, Afrique c'est on est toujours. Euh, dépendant te dépendance boobu moo ñu moo ñu yóbbee moo ñu yóbbee li xew nii te aujourd'hui euh, on ne peut pas ñu am benn politique boo xam ne dañoo bëgg Afrique euh, nooy yi dañu bëgg Afrique jëm kanam dañu bëgg ndaw ñi am liggéey mën ci dund et on est arrimé on est dañoo dañoo lëkkaloo ba léegi ak le le CFA dañoo dañoo nekk dëkk boo xam ne ba léegi dañoo noot ba léegi te loolu mënta mënta saafaraw fileeg euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, dépendre ci monnaie bi ñuy wax fa pour man déjà loolu aspect boobu bu ñu koy xool ci ci côté boobu déjà loolu problème la mhm. donc cherté cherté vie bi nag mhm. ñun ñëpp a koy dund man mi nga xam ne Dakar laa dëkk Sénégal laa laa laa Euh, damay jokkook ay ñoo xam ne sax ay étranger lañ. yoo xam nañ fi y' a cinq ans wala y' a dix ans dañuy ñëw ne moom mais Sénégal dafa dafa jéggi dayoo. ni dund bi méttee euh, ñu mel ne waa Ñoolank. ñi ngi doon euh, amal seen manifestation. ginnaaw ba nga xamante ni préfet accordé leen ko mais malgré tout dem nañ sur place ngir mun a ñaxtu li nga xamante ni moo di cherté dund beeg yu ni mel. donc man li may wax ci loolu rek mooy c'est dommage aussi. que yenn autorités yi bëgg euh, maanaam bëgg fay euh, bëgg bëgg teqatal baatu askan wi parce que pour man loolu dafa warul sax dafa ñaaw quoi mm-hmm. dafa ñaaw ñu toll context bi ñu toll ni mm-hmm. ba léegi ñu lay wax ne nit ñi dañuy refuser nit ñi ay ay manifestation wala dañ leen di refuser ay marche mm-hmm. man nekkuma du ma du ma activiste soi-disant du ma je suis un mais vision bi ma ci am Euh, pour man le Sénégal mérité wul lii. Mm-hmm. Sénégal mérité wul lii parce que euh, liberté liberté yi boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko tëjee. Mm-hmm. wala nga bëgg a empêcher nit ñi ñu exprimer wu. Mm-hmm. la situation devient de plus en plus grave parce que nit ñi déjà li ñuy dund rek dafa metti ñun ñëpp dañ koy dund mooy li ma doon wax sànq ñëpp koy dund. ni loyer bi yokkoo. Euh, suukar wala ceeb wala diwlin loo loo mënta jënd. dafa yokk explication yi nga xam ne nag nit ñi ñi nga xam ne ay techniciens lañ dañ koy joxe pour man explication yooyu nekkul sax en phase ak ak réalité yi am ci dëkk bi boo souvent les gens prennent référence euh, ci dak ndakaaru mais ñi nga xam ne ñooy dund métti métti bi tar tar bi dëgg boo génnee fii Sénégal dugg ci biir àll bi di nga gis ne que vraiment nit ñaa ngi souffrir te il faut vraiment qu'on soit dans l'action pour man toll nañ jamono boo xamante ne nii Euh, Sénégal en tout cas. te ñooñu sax seen jafe-jafe dafa bëri yemul kese ci cherté dund bi euh, ñàkkum courant bi ñàkkum ndox bi loolu yëpp ça pose problème. c'est à 360 degrés. Mhm. te dañu toll foo xamante ne ni pour man en fait sànq laa ko doon waxtaanee. Euh, on perd beaucoup beaucoup de temps. Mhm. et pourquoi ma ne on perd beaucoup de temps parce que boo xoolee li xew ci ci ci même ci ci ci médias yi internet bi. on se focalise dañuy focaliser suñu énergie mm. ci li nga xamante ne ni pour man sa ça ça fait perdre beaucoup, beaucoup de, temps. et que aujourd'hui au lieu que ñuy jël euh, am jotu di teqatal yenn yenn yenn comme ñi nga wax noonu sànq mm-hmm. muy waa ñoo lànk wala wala moo xam activiste moo mm-hmm. xam artiste mm-hmm. au nga leen di teqatal wala nga leen di empêcher ñu exprimer wu pour man waroon nañ jël le temps pour mën a saafara li nga xamante mooy mébétu askan wi loolu nag ñun waxoon nañ ko ci suñu album bi nga xam ne génn na en 2020 mm-hmm. am na ci ay titres yoo xam ne on avait déjà sonné woon sonné woon nañ alarme bi mm-hmm. xam nga sonné woon nañ alarme bi en disant que ah euh, jamono biñ bi biñ toll nii euh, am na ñu bëri ñoo xamante nañ ci askan wi la ñu féete ñi ci ëpp ñu ngi ñu ngi souffrir ñu ngi mm-hmm. dund loo xamante ne nii xëy na des fois di nga nekk ci benn benn niveau boo xam ne doo ci am dégg-dégg wala da nga koy gis mais da nga koy da koy soofantal parce que comme li ñuy wax rek euh, bu for yombee rek sëgg dafay jafe sëgg jafe waaw c'est euh, nga wax léegi lu am solo beneen actualité euh, phare mooy yenn ci say mbokk rappeur yu mel ni comme Simon ak kii di Kilifeu ñu tuumal leen wàllu trafic euh, de visa kit passeport diplomatique ba jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon sa gis-gis par rapport ak euh, lu ni mel en tant qu'artiste également euh, suma juumul am ngeen xamante ngeen am ngeen ay rapport vraiment waaw xamante nañ bu baax a baax a baax a baax c'est des gens yoo xam ne ñoom ay samay compatriotes lañ ci wàllum aar bi mhm. parce que lu ci bëri li may échanger ak ñoom ci wàllu aar la mhm. xam nga donc une fois mës naa dem ci benn manifestation bu ma Simon woowoon mhm. Euh, ci wàllu defe naa dañ doon def sensibilisation parce que vraiment c'est c'est des Simon nekk na sama sama jeune frère nekk koo xamante ni bi muy tàmbali ci rab bi daan na ñëw ci man ñuy échanger lu bare bare bare bare xam nga donc mu nekk quelqu'un boo xamante ni il est entier quoi xam nga mm. donc moo tax bi lii amee rek loolu laa dama ko dama ko dama vraiment mu nekk lu ma lu ma lu ma metti mm-hmm. euh, et puis li ma ci wax rek mooy que c' est très dommage parce que même xale yi. Mm-hmm. yi nga xamante ne nii peut être duñ dañuy xool média yi gis lii xew ci télé bi du ñu comprendre lu bari. et que aujourd'hui je trouve dommage que euh, qu'on fasse le maanaam terrain bi nga xamante ne nii. mooy terrain politique bi mm-hmm. ak terrain artistique bi ñu lépp que tout soit mélangé mm-hmm. et qu'aujourd'hui les gens se fassent la guerre euh, man noonu laa ko mën a tuddee parce que bu ma amee analyse am tuuti recul je je me pose des questions en me disant ah am na ay vidéos yu ñu génne. pour discréditer des gens. et le pourquoi je me pose des questions. Mm-hmm. et je me dis que Sénégal war na dépasser lii parce que. Mm-hmm. temps comme li ma doon wax sànq rek temps bi ñu énergie bi ñuy jël di ko déployer. Mm-hmm. Euh, pour jéem a discréditer ay nit. wala pour jéem a ku nekk di génne vidéo parce que de part et d'autre on voit des vidéos qui sortent. et je me dis euh, on perd du temps. et que li may wax rek mooy que en tout cas j'envoie de la force. à mes amis artistes. Mhm. Euh, comme ni ko am américain di di waxee keep your head up. Euh, ñu gën leen ñaaxaat. Mhm. ñu xam ne que àdduna bi yëpp mu ngi leen di xool. Mhm. et nit nag jombul mën nga def erreur mën nga mën nga mën nga mais na nga fexe ba nga xamante ne nii bu la kenn euh, mën a. teg dara lu lu tilim ci sa der. c'est-à-dire buñ lay xaar ci ci fenn fii nga fexe ba ñu bañ la fa gis. mu ngoog ñu bañ la fa gis et tamit li may li may déplorer mooy li ma wax sànq mooy que le fait que ñu utiliser euh, ay ay euh, maanaam euh, manière bi nga xam ne moom lañ moom la politiciens yi di def. Mhm. pour se faire la guerre. Mhm. pour man c'est c'est très bas. Mhm. dafa ñaaw le Sénégal ne mérite pas ça aujourd'hui peut-être li ma doon wax sànq. on aurait dû être euh, nekk waroon nañ fi nekk di wax waxi je sais pas man euh, technologie naka la ñuy def pour ñu génn ci ndóol bi ñu nekk naka la ñuy def pour que le Sénégal aille de l'avant au lieu que on perde de l'énergie mhm. on perd du temps à à à se dire ah tel kii def na lii kii def na lee ku ci nekk mhm. xam nga li nga xam ne moom ngay dund ak li ngay def ak li nga dul def mhm. te yaakaar naa ni Sénégal aussi nekk na dëkk boo xam ne war nañu càmbaraat bu baax a baax baax suñu justice parce que à chaque fois dañuy gis ne que euh, day am ay abus day am ay abus te man comme ni ñu wax rek boo nekkee artiste di nga am sax au moins benn recul boo xam ne dina la may yii nii yëpp du c'est parce que dañoo nekk ay moo tax lii nii seen kaw est-ce que tamit peut-être bu ñu resté woon peut seen art à savoir comme kenn mënu leen kenn mënu leen tere bañ a doon ay parce que euh, li ñuy woowee activisme mooy man dama gis ne que c'est juste des gens yoo xam ne ils sont dans laar mais aussi ñu ngi jëmmal seen art ak euh, di représenter seen seen seen askan Euh, nit ku nekk nag personne n'est parfait mhm. personne n'est parfait dans la vie euh, nit dina def erreur euh, mais li may li may ñaan rek li may ñaanaat ñi nga xam ne mooy suñu ay dirigeant mhm. di ko ñaan aussi ñi nga xam ne ay activiste lañ wala ay artiste lañ mhm. nañu bàyyi xel ne que xale yi ñu ñuy xool sànq sama doom dafa ñëw ne ma dafa ñëw posé ma benn question ne ma mais kan mooy Bougazelli yi ak lu mu def di ma laaj xam nga dama amoon sax kersa pour mais ma expliquer ko. Mhm. lépp nu mu demee. mooy mu nekkaat beneen beneen problème nga xam marqué na actualité. moom laa la xale xale di ma laaj loolu. Mhm. donc ma expliquer ko parce gisaat ay vidéo yu nga xamante ne instant bi ñu ngi koy. c'est incroyable te depuis lors euh, vidéo yooyu kenn kenn ko woon. c'est incroyable et et et j'attire aussi la j'attire euh, de la presse aussi parce que je vois que bon c'est vrai c'est du pain béni pour ñu bari tey jii euh, bu suba bu ëllëgee bu ñu la nee ah am na vidéo bu ñu génnee ci ndongo les gens vont le partager et tout ça mm. donc toll nañ jamono boo xam ne vraiment euh, lépp a jaxasoo mm. et euh, damay rek ñaaxaat nit ñi ñu seen xel na demaat ci ñu mel ni maam Abdou Aziz Sy baax mm. ci ñi nga xam ne ñu tedd ñi nga xam ne jaar nañ fi kon daal jàpp nga ni même su fekkee ni ñoom ñoo def le fait ni ñuy xawee seen sutur bi yow rafetlu woo ko rafetul mm-hmm. rafetul te ñaaw na ci ci ci ci ñaaw na ci deru Sénégal parce que pour man euh, on a atteint un niveau boo xamante ne nii tey n'importe kii mën na ñëw euh, loo xam ne du yoon filmer la mhm. wala mu mu mu mu mu enregistrer say audio wala donc ça donne une image boo xam ne nit euh, ñi xamul sax mooy que peut-être ñenn ñi xam nañ ko mais loi bi léegi voté nañ ko léegi loolu boo ko defee tu es poursuivi voilà et ce qui est c'est que l'atteinte la vie privée pourquoi mu am benn benn benn je veux dire euh, je sais pas parce que man euh, comme li ma la wax sama coin laay nekk je suis artiste. Mm -hmm. je suis les infos comme ñëpp. Mm -hmm. euh, je me pose beaucoup de questions. je me de questions euh, parce que ñu am na ay dossiers yoo xam ne leer na ma ne am na ay dossiers yoo xamante ne ni ñoo gën a sensible seen dossier ñoom. Mm-hmm. et que aujourd'hui c'est vrai tout le monde en parle. Mm-hmm. Euh, ça ça aussi la question de la mobilité des gens. de, des populations et des artistes parce que aujourd'hui mhm. ñaata ñaata artiste wala ñaata nit ñooy déposer visa mhm. ñu refuser leen ko donc ça amène une situation boo xamante nit ñi dañuy obligé dugg ci yenn yi wala ñu def yenn yi mhm. rien que pour mën a génn dëkk bi donc mooy li ma doon wax sànq euh, nos dirigeants devraient euh, créer le rêve africain créer des conditions yoo xamante ne ni ñooy permettre les jeunes ñu mën a am liggéey mën a tekki fii donc tant que loolu defuñu ko ba peut-être les gens vont juger des gens parce que dañ ne wey def nañ ay deal et cetera et mm-hmm. mais il faut il voir le fond du problème. Mm-hmm. et se dire que personne n'est parfait. Mm-hmm. personne n'est parfait man mii di wax ak yéen je suis une personne boo xam ne yàlla rek a xam. mais personne n'est parfait et aujourd'hui je pense que Sénégal li ñu gën a soxla mooy l'unité. ñu soxla vraiment. ñu mën a projeter suñu bopp. dix vingt ans cinquante ans cent ans devant. ñu xam ne que au delà des des clivages politiques au delà de nos euh, yi nga xam ne moom la ñu mën nañ mën nañ bañ a am. Euh, mën nañ bañ a déggoo ci yenn yi. mën nañu ku nekk mën nga am sa position. mais je pense que au final. lépp solo mooy l' avenir du Sénégal. du et c' très dommage. ñu mm -hmm. je sens que aujourd'hui en fait à partir de maintenant depuis quelques années. tout ce qu'on fait, c'est de la, c'est de la politique, mm -hmm. c'est, c'est, c'est des campagnes, mm -hmm. c'est tout ce qu'on fait. Mhm. Te mm -hmm. qu aussi empêcher bah, des voix mhm. que ça qu'on